xam nañ si ay suñu mbokk ñu nga xamante ne tey jii ils étaient nantis am ay 10 points de transfert tey jii ils ont tout vendu man ki ñu xam loo Wave bi mu ñëwee si ñun di ñu ko présenté on avait les armes aux yeux Wave da ko doon topp 30 millions il a tout vendu sa maison séyam sax tas na produit boobu tey jii moo ñëw nekk une menace réelle pour le cancer nu mu nekkee menace dina yomb comprendre même les clients yu nga xamante ne daw nañu song Wave lan moo tax ñu daw song ko ñom sen gratuité parce que nee nañu lépp amul fay dañuy may lepp que ça soit clair on n'a pas de problème avec les clients clients yi lu mu gëna yombé su ñom ñun d'accord nañu mais nak nous faisons du business ay entrepreneur lañu jël ay salle jël ay personnel am ay charge kep ku ñuy liggéeyal en contrepartie dañ ci bëgg dara comme yow salarié bi ni nga bëggee weer bi dee ñu jox la salaire nga dem fayal sa doom faj sa jabar yor sa kër ñun loolu la yore suñu bopp donc produit bu ñëw nag bëgg a dindi loolu bëgg a andiwaat njaam ne liggéey leen te doo leen ci am dara loolu kenn du ko nangu Wave loolu la andi andi na 1 pour cent ndax ba dugg nee naa leen amu leen benn mérite dafa mel ni transporteurs yi dañu am des prix homologués soo bëggee dem Pikine lii ngay fay 100 francs 200 kenn xëy rek ne man ñëw naa andi naa samay auto léegi deureum ngeen di fay ñaar deureum ngeen di fay ñeppay daw songu ko où est le mérite mais ñi liggéey ak yow est-ce que dinañ ci génn lan lañuy def seen auto pour am essence lan lañuy def pour dox loolu mooy la situation Sénégal ñëwuñu fa pour xeex dañu ñëw pour sauver le pays parce que ay travailleur lañu wéew lim fi andi su ko saxalee tey moo ngi si ñun mais suba moom lan mooy seen lapsus nee nañu ñoom dañuy perte évidemment il faut ñu perte sooy liggéey te ko wo defo dara gratuit da ngay perte mais lan mo nek ci ginaaw loolu lu nek ci ginaaw du philanthrope bobu ñuy wax de philanthrope du taxaw naan damay investir sur long terme philanthrope day jël xaalis bi mu am yëpp ñëw joxe séddale ngir yalla ak yonent bi mais ki li mu bëgg moy client yëpp daw jël jël Wave bi def fa seen dencukaayu xaalis dajale fa des sommes colossales su paré ñom ñu jël xaalis bobu dem diko placer d'utiliser le taux de change des choses que ça les rapports des milliards et des milliards et des milliards Ce ko fait un Yankee accompagné par une personnalité que vous ne mënul wax ak kenn ñoo ñu bëgg imposer du nangu kenn du nangu kenn du nangu loolu que vous avez bëgg yëgal ñëpp ne ñun aviser nañu ñëpp am certains certes des prestataires peut-être comprendre nous on you mais dañu bëgg ñu li ñuy liggéey nan somme tourner avec une somme de 8 millions de 6 millions à la fin de la journée tu te retrouves avec 6 avec 5000 lan soutenir kan charge la yor nañu lapsus ne li leen tax a moy ray point yu ndaw parce que Nous ñuy wax point ñoo substitué aux banques di liggéey de 7 h à 23 h quartier boo dugg coono amatu fa dépense yu ndaw yi fa lay jaar loolu suñ ko fi jëlee dañuy société donc Sénégal yëpp ñoo ci war a taxaw léegi nag ñun daje nañu pour wax loolu nekkatuñu fii di xeex di boycotter di di mer sitting parce que l'olu ñi koy def moy ñu amul dara gaay fi ay millionnaires rek fi tok xaliss bi circuler ci transfert yëpp dama bëgg ju leeral dara wari joxuñu ko wéef joxuñu ko parce que parfois nit ñi lañuy foog loolu ñu xaalis la ñun ñoo ko jël moom ko di ci liggéey te kuy liggéey da bëgg a gañe am nañu droit ku fi andi produit bu nga xamante ne day làq yu ñu yor ñu won la ginnaaw léegi loolu nañu woote prestataire du Sénégal won leen ginnaaw wéef daf ñu fi bëgg a jëlee nañ ko fi jëlee tous les moyens sont bons